billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmani irahim wasalaatu wasalaamu ala nabiil karim sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawi ritwaani wa tamkin bokk jullit yi bokk taalibe yi bokk am di jàmm yi noo ngi dikkaat di leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di balaax ñëpp tey balaax ñëpp tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di am mbégte rek del siwaat ci seen émission immigré numéro 13A fas ñëw ci waxtaan waam solo woo xam ne si dañ koy sof ci waxtaan wi ñu génn muy 12A jëme woon ko ci wàllu jafe-jafe yi ci diggante ñi nga xam ne ñooy euh, frères yi nga xam ne ñoom ñooy nekk fii ci réew mi ak ñi nga xamante ne si ñooy ay waajur ak seeni doom ak ñi nga xam ne ñooy mag ak yi ci li nga xamante ne si moom lañ ci doon wax ci ay jafe-jafe ci wàllu tongo ba mu indi taqali ko ak diggante baay ak doom yi ci wàllu investir yi ñu waroon def ci ñoom te loola léppit ñu jël ko teg ko ci suuf ba jafe-jafe yi nga xam ne moom lañuy ñuy dund ñu di ko dund te gisaguñ lu leen ci mën a génne tey nag incha allahu dañoo bëgg ñëw mottali ko ci 13A bi ba bu jeexul it ñu mën ko yóbbu ci quatorze a incha allahu bëgg nañ daal thème bi ñu yëkkati ñu topp ko ba mu jeex tàkk waaye laata ñuy ñëw ci waxtaan wi rek niñ ko baaxoo di defee nuyu sunu bokki immigré yi nga xam ne ñoo moom émission bi muy les sénégalais diaspora te di ñu bàyyi xel saa su nekk altine jot. ñu di leen di indil waxtaan yi ñu di ci bég lool di ci gis seen bopp di ci jubantiku ñu nuyu ñooñ ñëpp rek su ko defee door a ñëw nag ci wàllu waxtaan wi tàmbulee ko rek ci fii nga xamante ni si fi lañuy ñuy àddoo muy Europe ci réewum itali waaye ci région Toscana waaye ci dëkk bi nga xam ne moom lañuy wax wax Follonica ñu toog nii ci tefes gi di fi yëkkatee sun kàddu ngir tàmm guñ leen tàmmala defal émission bi te waxtu ji ci ñuy def ak farlu ngir bëgg rek ngeen di ci jot ni mu gëne ni ñi nuyu waa Europe gépp di nuyu waa États-Unis nuyu waa monde arabe ak pays asiatique yi ak Moyen-Orient ak waa Union soviétique ak waa Afrique de l'AOF mboolem fu ab sénégalais nekk rek di nu dégg ñoo ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xam naa laata ñuy ñëw nag nañ ko daan waxee rek ni lañ leen koy fàttalee ndax gis nañ ne ñi ñuy bàyyi xel bari na ba tax na wax dëgg yàlla connaissance bi yaatu na loolee nag ci lañuy ñuy occasionné jàllale yàlla ci message bii nga xam ne ñor nañu lool muy daaray kamil ju ñu taxawal ca Touba. di dajale téere suñ borom bi tabaraka wa taala muy alquran al karim wutal ko kàggu guñ koy def wutal ko barab muy jàkka lool lépp ñu gis ne taalibe yi ñëw nañ ci wuy siñu ci bu baax ba am na taxawaay buñ buñ ci def ba tax na am loo xam ne si tey boo doxoon ak sa tànk wa demee na gis ne lii jëmmal nañ ko fa waaye ñu ni nag weesu foofu bëgg nag wut pàkk boo xam ne dañ ko fay toxal yóbbu ko fa buñ demee ñu def fa jàkka def fa daaray alxuraan waaye bu fekkante ne yooyu am na fa ba pare dañuy jël daaray kamil yi aj ko ci kaw jàkka ji jël néeg yi aj ko ci kaw daaray alxuraan ji ngir sëriñ bi nga xam ne moom lañu fay indi mu war fay jàngale alxuraan ak xam-xam mën a loose foofa danañ fa wutit barabu mawlut boo xam ne sii na ko sëñ Touba daan defe ci njëriñ ca lañ koy roye waaye fa tiim barabu mawlut bi dañ koy def daaray xasida su ko defee téere yi xasida yi tagg yi ak téere yi xasida yi xam-xam yi ñu mën ko faa daje su ko defee mu nekk loo xam ne sii ku foo ñëw wisit rek da nga xam ne bu dikkee da nga fekk diini ñu ci woo ñëpp nag képp koo xam ne bëgg nga cee jàpp rek numéro téléphone yi ñu lay jox soo ci jaaree insha allahu danañ mën a fexe ba nga dugal ci saw ñaq boo defee double zéro trente def trois cent soixante six onze soixante six six cent soixante onze wala nga defaat double sero trente neuf trois cent soixante six soixante quatorze soixante douze quatre cent quatorze ñaari numéro yëpp am na whatsapp soo ci yónnee message danañ la mën a teg ci yoon woo xam ne soo ci bëggee barkeelu danañ la jox kartu gab boo xam ne am na ibaan boo nekkee bitim réew mën nga ko cee jaare boo ne ci biir réew mi mën nga ko jaare ci fukki numéro yi ak juróom-benn loolu kon mooy li nga xam ne mooy annonce bi ñu tàmbalee ko waxtaan wi numéro 3A tey dafay ñeel immigré bi daan dooleem fii te bàyyi këram ca Sénégal gis nañ ne kër ga nga bàyyi ca Sénégal danga fay bàyyi say soxna bàyyi fa say rakk bàyyi fa say jigéen bàyyi fa say mag ak sa ndey ak sa baay xam ngeen ne loolu nag diis na lool te diisaay googe it fes na lool tax na bari na ñu ñu balise wu ñoo xam ne loola leen tëye ba seen temps bépp ñu def ko ci Europe te mënuñu ci génn waaye dafa am beneen jafe-jafe bu ciy judduwaat ci ñi nga xam ne ñoom nga ko seqal di leen féete fen wet gu nekk te ñoom duñ la jàppale ci dara rawatina tey boo ci amoon mag boo bokkal ndey ak baay mu yor la toll ci ñaari soxna walla ñett lañ nga jàpp ko ci ñaar rek nga toxale ko ca dëkk ba nga xam ne fa ngeen cosaanoo mu fa daan bay daan def ba activité yëpp ngir daan ci dund waaye nga ñëw tukki daal di tabax sa kër rek dem toxal ñëpp ñu bàyyi lañ doon yëngul lépp ñëw nga yore leen seen lépp loolu tey téeméeri moodu yoo jël juróom benn fukki yëpp looloo leen gaare dem nañ ba siisaat sa tuñ yan bi ñu jékki-jékki rek daanoog moom ne nërëm te benn yërmande du jóge ci ñoom ñëw ci yow loola yaakaar naa yéen ñi may dégg war ngeen koo mën a comprendre bu baax ndax tey mag jooju yor ñaari jabar tey nga indi ko ci kër gi jox koom néeg jabar yi kenn ko ne nga jox koom néeg loolu day occupé ñetti néeg bu fekkee juróom benn néeg nga def nga jël ñetti néeg ci des dëkk fa ak sa ñaari jabar xëy na mën nga am roq bopp ca ngay def xale ya léegi képp koo xam ne dara war na ko ci ñooñee nga fa teg loola lépp ci sa kaw lañ koy sarse sa mag joojee bu amee ngénte yaa koy ngénteel yaa koy joxel depas yaay wodd waa këram muy nga di leen xottil yeneen yitte yi ñuy def it yaa koy def yaa yore dépassu kër gi yaay xottil say jabar yaa leen di faj yaa leen di defal lépp loolu nag xam ngeen ne ci lim bi xam ngeen ne xel xalaatul sax ne nit war na koo mën a def te effectivement nit mënu ko def waaye boo ca doon am ak fay ak sant wala ak encouragement sax bu boobaa xëy na lu mu métti métti métti da am courage waaye daanaka nag. noonee nga ko yanoo day booleeg ñu yor seeni yar walla yor seeni béjjën di la ko jam wala yor seeni paak te mën nañ ko tàmbalee ci mag ji nga xam ne ñu yaa ko yoral lépp du yam ca loola di la ca sant wala muy jéem a góorlu wala goneem ya mu yor wala muy ñu dëgër di waaye waxambaane mu xirtal leen ñu góor góorgóorlu dem liggéey ñëw jàppale la moom day fas yéene fu mu xëyee rek daal di àkk ca garab place ba toog ca teati garab ya bu toogee ba jant bi dem yoonam tàng jër nga xam ne waxtu añ a ngi jot mu daal di sol yi dikk ci kër gi bu dikkee buñ añee mu tëdd nelaw mu ngoon jotee mu delluwaat ca këru ngoon ga loola gis nañ ne yëmu ca waaye dañuy bëggit weccet wu ñuy def ci seen poos te ñoom dépasse waru leen ndax teggil nga leen ko yaay waddu waa këram yaay yal ak njabootam bu ñuy jàng yaa leen di fayal bu ñu feebaree yaa leen di faj loola nag gis nañ ne bis bu la diisoon benn soxla képp nga gàntal ko mu tàmbali laa mere tàmbali di am aw dig seen diggante ay jabaram tàmbali di am aw digg ak say jabar ay doomam di jàpp say doom di leen dóor soo demee ba nag ba loolu na ko boo ca waxee moom benn kàddu mu wëra dëkk bi diw ko daf ma joxul cër maay magam waaye gis nga ne lu ne la may yekk lu ne la may wax kenn ku nekk bay ci saw laaj ah Modou Modou yi de moom mi ngi nii rek moom daal buñ commencé buñ la tanee duutuñu la nawloo kenn ku nekk ñëw indi wax ca say mbir su ko defee nag kooka sarse bu fees del tàmbali di xuloog yow ngeen di am ay problème bu ngeen demee ba nga xam ne jamono ñëw na ba nga xam ne lii mën a toog koo satisfaire am na ci ñooñu sax dañuy dem wut barab defar ko ba yamamaay ñu ñëw ne la kaay toxu ci lii ci kër gii loola lam koy gisee moom mooy fu mu dem ci dëkk bi naan xamoon naa ne dana ma génnee daf ma génnee waaw ndax gis nga ko mënta dëkk ak man mënta dëkk ak samay doom mën ta dëkk ak samay soxna ay soxnaam dañ may def lii dañ may def laa léegi loola lay jël waxtu ko defee ku ca yoonam nekkul ku nekk daal di ñëw daal di bokk ci coalition bi sot garab ba place boo toog garas boo toog ci moom ngeen fay nekke naan gis nga jamono ji léegi soppiku na koo xam ne si sëñ bi daa génnee magam waaw ndax da koo soxare def nangam ak nangam su ko defee ku nekk am ci yoon lii dal na moodu moodu yi bari na ci ñu yor ay mag yoo xam si la leen taqale mooy problème yi nga xam ne ñu ngi ko yanu ba pare te ñoom jéemuñu leen ci dimbali ci benn côté xanaa di leen gën a sarse waxtu jot ñu leen di diis soxla soo xam ne si yow joxeetoob dépasse looy dox di ñaanub xaalis xaalis booy def sa poos kan moo ko mën a liggéey di la ko jox ba pare yoral la sa njaboot gi nii nga waroon ko caa sant ak xirtal gone yi ñuy góorgóorlu dem di dimbali borom kër gi waaye loolu lépp du la ca fekk te yaa ngi occupé ay néeg di lakk courant di lu ne nga di ko def ci kër gi te loola sa yoon nekku ci facture courant sa yoon nekku ci duus bu fees sa yoon nekku ci te yooyu yëpp da ngeen naan xam di ko seetaan waroon na taxaw sax taxawaayu di seexanalal kii li nga xam ne moom la war a am ci kër gi waaye duñ ko def su ko defee nag jabaram yooye daal di jël seeni ba teg ko ci sa kaw jabar ak kujje muy wujje peccor ga tàmbulee dikk lii dispersé na ab famille boo xamee ne que nii dañoo nekkoon ensemble yàq na ak bokk ba tax ne tuddante duutu am lii mooy li nga xam ne mooy li am bu fekkee sa yaay di dund nag ah foofu it jafe-jafe dafay am ndax sa sœur yi nga xam ne da am nga ko muy say grand sœur wala say petit sœur dem sëyi dégg nga waaye tàmm gi ñuy bagante di ñëw ci kër gi ak fañ nekk di la woo téléphone nga di leen envoyé xaalis day tax duutu ñu nawloo seeni borom kër lu leen seen borom kër ne xat gi lay na rek ñu yanu seeni i bagage wala ñu wax ko wax joo xam ne si duutuñu xajoog ñoom ba ñu bari ci lañ jaare divorce buñ divorcé nag dañuy ñëw ca kër ga bëgg faa jël néeg indaale seen i doom ya nga xam ne bàyyiwuñ ko ca kër ga seen bàyyi war ko yor seen bàyyi lànk na du ko yor lépp ñu dell ko wékkat la ko su ko defee nag dañuy ñëw daal di wut ak parparloo ci say jabar xool kon cay àndal ànd ci ak seen yaay di ko tagg guddi di ko tagg bëccëg jël ka nga xam ne jubuwuñ ko sànni ko ca àll ba di ko xas guddi di ko xas bëccëg foo téléphoné ñu woo la ne sa jabar jii de war nga cee wax def na fi lii def na fa laa ngay dëkke atte te nekk ci jafe-jafe yu mel nii war a teel a xëy liggéey wala nga manqué mu xëy wala sa liggéey manqué jafe-jafe yooyu ngay boo wàccee te ñu sol ko ci sa bopp bi waxtu jot ñuy atte loola xajul ci boppam kuy nekk ci bitim loola gis nañ ne tey seen jigéen yooyu tas ca seeni kër jëkkër dikk ñëw dolli ay sàrt ci sa kër àndaale seeni doom nga di leen yor ñu ñëw fexe ba kompaloog seen yaay tas sa kër xajale say jabar moodu moodu yu bari daanu nañ ci kaaf goo xam ne nii wala daanu nañ ci kàmb goo xam ne nii loola képp moo leen ca daaneel loola nag waxoon naa ko ca dus aaba ca njëlbeen ga la waroon a tàmbalee gis nga nit ki lu mu te continuer waru koo tàmbali te dana tàmbali habitude bu bon muy habitude kii sa mag laag kii sa nijaay laag dimbali koog jàppale koog yaa ko war a yor yaa ko war a defal nangam boo ko ko defalul ko ko koy defal te fekk na ma nga doon ñab ñabi di ci dara nga xàjjale koog loola andi ko boo dikkee xam nga ne loolu lépp ci sa kaw la koy so te am na loolu du mën a continuer ndax njaboot guy yokk mënta ànd ak nag doole ji yokk doole ji mu tuutaar da nga day des sa gannaaw su ko defee bu doole ji desee gannaaw nag wërsëgo day tàmbali di wàññi moo tax ku mën dara xirtal ko ci mu def dara te bu ko tànnalit la muy def mooy dangay fexee fexe ba sarse ko teg ko ay fare sa mag jooji boo ko fi indee na ko wax ne ko bu xëyee ne wuti lu mu def moo xam lu man bu dee jaay ngooñ bu dee aw ay ay téere dégg nga bu dee commerce lu mu mën a xëy def daal lu mu tuuti tuuti na nga ko gàcce responsabilité boobu mu xëy dem defi ko doomam yooyu nga xam ne ñoo nekk ca kër ga it moo xam jigéen góor gone yu dëgër lañ bu leen gàddul dara fexeel ba wax leen ñu xëy dem di wuti métier te bul tànnal kenn métier ndax koo ci tànnal métier daanaka mën nga bañ koo def loo dara yam ndax lépp da koy jël yenn ko ci yow te du jéemal boppam dara ndax ndimbal baatum ndimbal sénégalais da koo bëgg lu muy mën di jéemin ma ngi cay xaal ko ko ku ko ci dimbali loole it da nga ci jël say responsabilité fexe ba sas leen dara ci kër gi ne leen kër gi nag na kenn nag ku nekk xool lu mu fi attan mu jéem ko jël café ngi fi sukkar a ngi fi dégg nga gaz bu ñuy sarse ngi fi jëndum këriñ a ngi fi fayum facture courant ngi fi yooyu yëpp kenn ku nekk nga seet ci dara yëkkati ko jox ko te bañ ko cee neexal nag bañ ko cee yërëm kooku ci def bu xëyee dem wuti dara bu ñoo ñëpp dajaloo bu ñu dara loola dana mën a doon dara bu ëllëgee it kenn ku nekk dana mën a beru dem wuti boppam waaye ñoom ñëpp boo leen teggalee loola yanul leen ko kenn du jéem dara te yow dana wóor na lii ci man dara kon loolu it leesu war di xalaat la te bari nañu daanu bu dee ñi nga xamante ne si ñooy sa doom yi bopp yi waxoon naa leen ko koo ci jàngal ba mu am jàngam àgg na nga ko xeetal ci mu dem wuti ab micc am liggéey bul ko tànnal benn liggéey nag bul ko boole gi kenn naan ko kaay ma boole la moom mu jàngal la micc ñi ko def ñëpp a échec ndax yàccaaral gañ tàmm tax koo ci defloo dara mu ne kii def ma yabak daf ma bëgg a def nangam ay mbëndër bu ñu xëyee tëdd ci daal ku ne sànni tànk fi barab dafi dequb nen buñ yeewoo kenn ku ne képp nga jël bi piisu mburu lekk ko boole ko kaasub kafe wala kaasub meew ku see yërëm tilim nga dajale daal di dem jox say jabar ñu di leen fóotal dégg nga buñ xëyee daal di solo nekk ci dëkk bi dugg dox andil la fi ay catastrophe yoo xam si xamoo foo koy waxee bu añ jotee nu dikk kenn ku nekk ñu jox la borob ceeb nga lekk ba ne dung dugg ci sam néeg daal di lijjanti sa ataaya ngeen taal fa ñu dajale seeni xarit yi biir kër gi lakk sa ab courant sa kër moom securité amatu ko loola koo ca yafal bu yàggee ci sa kaw la jëm kon nag responsabilité dañ leen ko teel a jox bu kenn yërëm kenn ku xëy daal na xëy dem defi dara moom ku xëy na dem defi dara ku ko man na ko defi ku ko mënul na nga ko génnee kër gi bul ci bañ ku la mere ndax tout tard boo leen yafalee mer dana am ndax bu ñu ko tëmmul te liggéey bu ëllëgee boo ko attanatul koo ci ber mu génne daf maa génnee tongoo ak yow koo fa bàyyi it bëgg ne maanaam man maa koy wutal lu mu liggéey dama liggéey ba pare maa lay jox loolu liggéey kaay ma sarcel la place ngay ngay ngay koo ci sarcel place dana taal place ba moodu yi ci bari tey boo leen dajale woon tey kenn ku ne nga ne ko ndax jot nga investir dara ci famille bi loo xam ne si maanaam gisatoo ci dara kenn ko nekk mën na yëkkati loxo man ñàkk na six millions kii na ñàkk na dix millions kii na jënd naa oto kii na sart naa place waaye loolu lépp faras daal la xëddeen ñafa nekk di famille bi war la ci jàppale duñ la jàppale dañ koy wax ne ko waaw gaawal profito moom sax moom dalaa war a yóbbu waaye warulaa bàyyi fi ngay liggéey di ko jànk ba mu jël sa alal taal nga jàppanteeg moom ñu la sa jarbaat la moo ko war lekk sa doom la moo ko war a lekk waaw da ngaa war a bàyyi jàmbur yaa ko yéesoon foofu taxaw ñëpp di la sot moom daal boo yàqulee ñëpp dañuy dañ dañ mel ne da ko yéene te ñoom ñëpp nag yaa yor seen dund kon li ñuy wax toog ci terub garab di ko goro loolu moo bari ci li nga xamante ne si mooy Sénégalais yi ak seen yi am na dox na seen diggante ak seen doom dox seen diggante ak seen i jarbaat dox diggante ak seen i mag dox diggante ak seen jigéen ñi nga xam ne dañoo sëyi te ku ñëw ca kër ga àndaale sa doom nga yor seen gàddu seen lépp loolu xam ngeen ne Moodu boo dégg ne attan nee na attan na koy it waxul dëgg te benn même boo ko attanoon it diir bi nga leen koy defal da nga leen tardeel ndax kenn ko ne fa nga waroon a toll ci liggéey fexe nga ba mu loola romb ko ba euh, day mujj am ay jafe-jafe loolu lépp nag ak gàllankoor lay mujj yow mi koy def sax da ngaa war a xalaat ne bis bu la fi yàlla jëlee woon tey ana ñoom tey ci fan la ñuy jokk ak nit ki est dafa war a di féete woo rek ñu koy womat wala ñu koy jàngal raam loolu moom mënul nekk kon nit boo ko bëggee dimbali yi danga koy xirtal ci mu dem am ay responsabilité nit ki bu ma sóoree waxoon naa ko ci doom ya fa ngay tàmbalee responsabilité bi mooy déchargeel ko charge yi ngay sarse ci yaayam sa yaaya ngi nii léegi fexeel noo ko yore bu bëggee janq wutal ko ko bu bëggee charge gaz wutal ko ko bu bëggee wut këriñ wutal ko ko bu bëggee mat wutal ko ko leneen lu mu bëgg léegi desarte naa ko ci yow loolu koo ko def te boole ci fulla ak fayda mu jaral la nga dogoog moom dana nangoo liggéey waaye yafal bam ne dung dungeeral amul jom amul fayda nga yanu ko andi ko ci réew mii boo di kenn xam nga ne boobu moom duutoo ko jëriñoo te bu boobaa it xam nga ne jafe-jafe dong la lay doole kon loolu bokk na ci li nga xamante ni si tey bëggoon naa ko dolli ci waxtaanu immigré wi ci jafe-jafe bi nga xam ne Sénégal ñu ngi koy dund te sénégalais du gërëm mukk ñamu daw tey koo gën a sonn ci moom kookaa gën a doon sab noonu koo gën a sonn ci moom moo gën a doon sab noonu koo gën a xañ sa bopp moo la gën a bëgg a defab xarit koo gën a xañ sa bopp moo la gën a defab xarit nit koo ci jël teg ko responsabilité danaan siiwa jubag yow waaye koo tegg responsabilité mooy njëkk doon sam noonu ndax xamuñu bu ci yem koo ci teg ci sa gannaaw ma ngay yóotu kaw mbagg ya koo teg ci mbagg ya ma ngay yóotu dox ga loolu mooy habitude sénégalais te yàgg yàgg fa ngeen di mujj du baax comme fa ngeen di mujj du baax nag teela la nappal sa bopp ñàkk investir gi lépp lay war a moo di ci bari seeni alal seeni jarbaat seeni mag ñoo leen ko teg di leen yóbbante ñuy lekk te tey sa mag jooju tey dong ma nga fa yor ñaari jabar yërëmu la ma ngay jéem a wut ab takkoo boo xamee ne que nii yaakaaru ci kenn ku dul yow waxtu jëmale te bu Tabaski jotee it noonu nii dong lay demee day bëgg a reyum xar wala moo rey ay xar yoo xam si yow yaa koy booleeg say xar dem jënd tey bu jabaram amee problème tey bu it ànd ak jabaram tey ba jabaram am toll ci jël ab ëmb traitement ya muy def yëpp yow yaa koy def. dégg nga bu amee doom yow yaay ngénte bu amee dëj yow yaay yow yaa koy dëjal lii mooy li nga xam ne moom la moodu moodu yi di kon ku ci yaakaar nan damay toog senegal da ngay nax sa bopp donc mag nag du nax boppam kon lu leen dal nag dëgg la waa Sénégal leen ko teg waaye yéen ko nangu mag nag lum nangu teg ko ko dagan na mag lum nangu teg ko ko dagan na kon fii la jafe-jafe bi nekk bu ñu waxantee dëgg nag kenn moom duñ ci jóg mukk ku dee rek moom moom moom wàcc na la waaye li fi fii ñi ngi dund boo demoon ba amatoo ko it da ngay nekk mbaam moom mu ñu yàgg utilise rek bu demee bañ pare ci moom ci taatu miir yi lay nekk taati sàkket yi di lekki bant ba xëy xëy xëy xëy daal di dee ñooñu ñoo moodu moodu yi ñoo bokk ab dund li ñuy yanu lañu ñu ëttanul jabar yaa ngi fi doom yaa ngi fi mbokk yaa ngi fi kenn ku nekk mu jël soxlaam aj la ko ci yow sa jëmm ji bopp loolu moom yàgg-yàgg daanu ci suuf rek kon mbokk yi tey ñu ngi taxaw foofu ci numéro bi insa bu ñu demee ci 14A danañ ko gën a développé ba mu gën a yaatu su ko defee nit ñi gën cee mën a jëriñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu